thank you ñu dellu si waat émission euh, sunu kaay yi fii ci sunu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégale yi ñu leen di jëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu leen di wax aussi dégg nañ encouragement yi félicitations yi ak bëgg bi ngeen bëgg sunu kaay yi ba tax euh, saa su rek dañuy euh, mattali suñu yéenee mooy toog fii di leen di bëggal waxtaanee li nga xamante ne mooy kaay yi ci biir Sénégal. ci kaw loolu tey ñu nar a jël li nga xamante ne mën naa ne ci semaine bi sax waxtaanee ndaw yi muy maanaam drogue bi mu am nag plusieurs façons wu drogue tey dinañ laal li nga xamante ne moom mooy drogue violette di doog a ñëw fii nii Sénégal parce que ba mu xewee nag yàgg na mais balaa ñu ciy gën a xuus ma bàyyi sama ñaari chroniqueur bi di jëlu laa oreille ñu saafonteeg yéen. Mm-hmm. Mm-hmm. salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateur suñu Label TV uh-huh. ñu ngi amaat mbégte ak contentement comme d'habitude rek uh-huh. jàkkaarloo waat ak yéen uh-huh. comme li ngay wax rek euh, jox nañ la ay message nga transféré ma ko ndax bëgg gi ñu bëgg euh, suñu Label TV di seetaan suñu kaay ak yeneen euh, émission yi nga xamante ne mu ngi daw ci kër gi donc nag ñu ngi leen di remercier yéen a ñu tax a jóg yéen rek yéen a tax ñu toog fii lu ñu am rek dañ leen koy indil bu ko defee ñu mbokk ko Sénégal jëm kanam suñu Label ca kaw ca kanam incha allahu rabi mais di jëlu est-ce que xam ngeen ne dinaa jël seen numéro yow ak euh, la Ouray mhm. ma joxe ko fii en direct ci émission parce que dama sonn ndax di recevoir ay message di transfert laa dul mënati <laughs> Ah, man non dama transféré ay message personne non léegi damay jël seen numéro joxe ko léegi képp koo xamante ne rek da bëgg a wax ak Ouraye wala nga bëgg a wax ak di jëlu xam nga ngeen jël ko en direct te man sama téléphone gi fees na instant yi dafa bloqué en tout cas nga wàññi rek non du ko da nga da ngaa ñàkk ki ñaan ba heure bi message buñ la transféré nga transféré ah dinaa leen ko transféré ma remercier da ngaa ki ñaan ba heure bi bu ko yàq euh, waaw bul mel ni ñi nga xam ne dañoo ñàkk ba pare ñànki merci beaucoup <laughs> di Euh, partout au Sénégal partout dans le monde entier di leen daal di leen jaajëfal bu baax a baax euh, message bi euh, a été bien transmis ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li ñu la wax traduire te transféré ñu ko amul problème waaw ay jéelu damaa neex rek. la waaw baax na waaw baax na baax na la kook yooyu tamit du ma ko bëgg yooyu moom mujjee pour eux on pour les téléspectateurs on est là pour les sénégalais et dañu leen béggeel voilà yal na jàmm yàgg. nee nañ daal sunu kaay yi moo poñe bës bi temps yi. waaw wax nga dëgg yàlla kontaan nañ trop message bi mu ko liiree foofu moom jiw ñu jiw ñu ko mooy wane ne liggéey rek moo am solo. boobu ba ne ñu ngi a bu ngeen bëggul ma éjecté leen kon nag <laughs> voilà comme ni ma ko waxee ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy ndaw yi euh, suñu tamit nag bëri na torop ndaw yi mais ñu mm. bàyyi xel ne tamit euh, population sénégalaise bi est constituée en majorité par euh, par les jeunes donc foog ñuy waxtaan ak ñoom di leen di ñaax te puisque ñuy woo fu nekk aussi nag di ñu jox ay cas ne pour ñu traiter leen ko parce que xëy na mënuñoo ñëw toog ci plateau bi wala mënuñoo wax tamit mm-hmm. parce que gars yi léegi dañoo ragal lépp li nga xamante ne rek ci audiovisuel la ndax TikTok bi tey na dëkk bi dañ lay dagg dugal la si tiktok bi mooy réseaux sociaux yi. réseaux sorcières. sorcières yi xanaa ko tuddee voilà léegi nag comme actualité balaa ñuy xuus si li nga xamante ne mooy euh, thème bi. Mm. réseaux sociaux du sa troisième droit. sama troisième. drogue réseaux sociaux bi boobu la. doy na waar la réseaux sociaux waaw am drogue drogue bi am euh, li nga xamante ne moom mooy euh, pression sociale bi. sama deuxième drogue réseaux sociaux bi mooy. mooy troisième drogue troisième drogue. est xam nga ni cas yi drogue yi day continuer. day continuer di nga am quatrième drogue di nga am nii nii. Ah. nañ xuus kanam di nga am lu bari. kon ci nekk naa la ko décrire ah. di nga ba dix drogue nañ <laughs> donc ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy actualité bi. waaw actualité tey moom euh, doy na waar comme ni ñuy wax rek donc euh, dafa laal société bi. Mhm. donc euh, mu nekk loo xamante ne rafet xel xel xel xel rafetlu wu ko. xel rafetlu wu ko. Mhm. dalul xel. Mm-hmm. parce que lu tool ni hôpital boo xamante ne. Mm-hmm. Euh, mu ngi Aristide Le Dantec. ñu gën ko xam ci Le Dantec. waaw voilà mais est mm-hmm. xam nga ban at euh, la ñu hôpital euh, Le Dantec lañ ko construire. ah yaa ngi nii bind ko di ma jàkkaarloog moom nga di ma ko laaj 1916. <laughs> xoolal ma naan 1916. <laughs> ko triché dama mënoon triché kon la maa noonu ko doon baaxul bu ko xool ci donc c'est en 1912. 1912 voilà lañ ko lañ construire hôpital bi boobu hôpital central la tudd parce que bon ak fi mu placé. Mhm. Euh, c'était dans le centre. Mhm. boobu 400 lits moo fa amoon ak 104 104 agents. boobu bañ koy bañ koy sos en 1912. Mhm. en 1956 moom lañ ko tuddee nag hôpital Aristide Le Dantec. boobu 10 services médicaux spécialisés lañ amoon. léegi nag actuellement ñoo ngi ci 1000 li ak mille agent mille agent yoo xam ne ñu ngi liggéey. d'accord Aristide Le Dantec. léegi voilà yow nga doon wax ne. dañ koy tëj bi nga ñëwee ba léegi nii. Mm. yow bi nga xàmmee ba léegi nii mos nga fekkee fuñ ne dañuy defar hôpitalu Dantec. non. non hôpital baa ngi nii man nii laa ko xamee. te xanaa ñu peinturaat xanaa peinture yi. nii laa ko xamee daal ñu peinture euh, defaraat euh, yeesalaat mais. quand même man lu la ah, parce que man tëj bi déjà. Mm-hmm. daf maa jaaxal parce que ay malades mënuñu nekk ci biir ñi nekk en urgence. Mm-hmm. ñu ne dañuy tëj hôpital bi. Euh, je pense que répartir nañ leen si yeneen. hôpitaux yi non non mais loolu noonu est-ce a ñàkk ay ay ay parce que yoo xamante ne ñu bàyyi foofu noonu parce que c'est c'est un peu délicat muy odontologie lépp li nga xam ne dafa dem ci bëñ yi euh, pédiatrique mooy odontologie pédiatrique bi ak. non néphrologie mooy lépp lu jëm ci ci roñon bi mm-hmm. ñooñu prochaine euh, dañ leen bàyyeegum foofu en attendant parce que quand même déplacer leen euh, du lu du lu yomb te seen traitement mënuñu koo dagg. mais <coughs> moi mais ni avant jaay moom xam nga entre parenthèses mais avant ñu tëj sax avant ñu tëj. Euh, dañoo bu fekkee ne dañoo xam bi dañ ko war a réfectionner wala dañ ko war a tëj. mais dañu war a joxe délai mois nangam wala at nangam. maanaam ñu trouver place boo xamante ne buñ ko nar a tëj ñu évacuer malade yi fa nekk. yóbbu leen ci yeneen hôpitaux yi. maanaam diir bi quoi. durée bi waaw durée ñu def ko. waaw waaw waaw léegi maanaam. mais est ce que waxuñu ko woon bu yàgg aussi. wala non non non non bi est ce que est ce que lijjante nañu. Mhm. Euh, bu ñu ko nar a te wala bu ñu ko nar a réfectionné jël maladie yi yóbbu ko yeneen hôpitaux yi. waaw loolu laa doon wax problème parce que mënoo ñëw rek tas nañ service yi quand même. waaw mënoo ñëw rek tëj rek alors qu'il y a des malades dans euh, taj euh, nu mu tudd tas nañu euh, kii yi nu mu tudd service yi ci yenn hôpital yi nga xamante ne ñoo nekk je pense que. ça fait maintenant trois à quatre jours am na benn circulaire buy circuler ci mhm. niveau ci réseaux sociaux yi. comme mhm. quoi que ni réseaux sociaux aussi hôpital lañ ko lañ ko kii. lañ ko waaw lañ ko yóbbu. lañ léegi léegi man sama problème du loolu sama problème mooy malade yi nga xam ne dañ fa tëdd seen i seen seen i nit am yaakaar. yaa ngi dégg. Mhm. jël leen indi leen fii pour ñu fayal leen ñu faj leen. Mhm. léegi ñooñu ñu nga xam ne dañ leen war a mhm. ak seen état de santé. est-ce que c'est sûr. est-ce que loolu lu war la. est-ce que tamit nag jël nañu ay matuwaay yoo xamante ne ni que buñ leen déplacer dinañ prendre soin des c'est la première fois déjà ma dégg lu ni mel. Mhm. ma sax mais parce que déjà ministre bi ñun boobu ba léegi man franchement. maa ngi topp ngi topp mais dégg ko dégg guma ko ba léegi nii. Hmm. mu wax ci dara. mu def ci affaire mu wax ci affaire santé dara. Hmm. lu dul hôpital Maam Abdou Bey nga xam ne ñu ngi koy defaraat. Hmm. boobu laa gëj a dégg. xaw ma nag peut-être am loo xam ne lu ma yëgul la. mais wax dëgg neex yàlla maa ngi topp actualité mais dégg guma lool. lii aussi tamit ay malade ñoo fi tëdd. ah te seen i euh, ay ñi nga xamante ne ñoom seen ay bokk dañ leen a yaakaar bëgg ñu wér ñi nekk en urgence nga war leen a jële fii pour yóbbu leen feneen te ñoom bu ñu jaaxlee fii la ñuy ñëw léegi yow boo leen boo leen déplacé foofu bu juree ñoom bi après lan mooy am si gindigaale bu bëri yaa ngi dégg massa te massa fajul góom waaye sedd na xol waaw non non noonu noonu nañu bàyyi affaire olof yooyu yooyu noonu ñu ñuy def mm. di ñu defal ci loo xamante ne day metti xol góomu xol la nit ki am yaakaar bàyyi jël malaatam indi ko fii donc am yoo xam ne bu ñu koy def war nañ ko préparer war nañ ko préparer. bañ ko bañ ko yàkkamti bañ ko yàkkamti. Mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ne oxygène bi pour nga déplacer leen il faut nga débrancher oxygène bi ànd ak ñoom. non je pense que ñooñu ils sont ils sur place a jot comme ni ma ko doon wax euh, mënul arrêté donc pour transférer leen aussi logistique lay àndal benn logistique lay àndal. du doon ñëw rek ah, ah il faut mu demee noonu nag. Ah, il faut mu demee noonu mais est dina demee noonu. non dina demee noonu yaakaar naa. bu fàttali ñoo ngi Sénégal léegi nga am quatrième drone. <laughs> <laughs> voilà mais ñu rappeler rek ne que quand même. Euh... hôpital Dantec bi réfectionnement bi bëri na ay coow bëri na problème parce que 6 hectares la ci lu ñu wax euh, hôpital Aristide Dantec 6 hectares la trois hectares lañ si tabaxaat nee nañ ay espagnol lañ ko jox et pourtant euh, am na ñu nekk waxtaanoon nañ. njaay njaay mi nag. Ndiaye moo tax ma ne Ndiaye bi entre parenthèses est-ce que c'est c'est sûr parce que yow beaucoup de commentaires sur ça jaay nañ ko jaay ñu ko. jaay hectares comme li ma leen wax 6 hectares la Aristide Le Dantec di def léegi 3 hectares yi ñoom la ñuy construire moom la ñuy réfectionner yeneen 3 hectares yi dañ koo jaay nee nañ pour mën a am ay fonds pour euh, réfectionnement eh, wu 3 hectares yooyu noonu. waaw léegi moom laa lay wax Ndiaye mi kon am na. ah léegi yow c'est en tout cas c'est l'information hein léegi yow ak Sénégal ni mu tolloon problème bi ñu am ci affaire santé 3 hectares rek yow moom ngay tabax 6 hectares yi nga jaay ko pour am pour am pour am loo tabaxee ah, pour am loo tabaxee léegi ñun suñu milliard réew mi ñun Sénégal li muy liggéey anamu ah naa la ko. ah moom xanaa boobu am na <laughs> xanaa xam nga lu ñuy ma moom. dellu tubaab ya. c'est-à-dire <laughs> c'est-à-dire ndax bu toogal toogal non non non. toogal wóoratul dëkk bi réew wóoratul. Fatou c'est-à-dire <laughs> Fatou Sénégal Sénégal dañu toll foo xam ne. su ma la ne Sénégal day dem du yomb. Hmm. parce que de de dañu émerger. dañuy émerger ñun Sénégal émergent Sénégal émergent bàyyi bàyyi li ngeen bàyyi seen Sénégal émergent Fatou yow tamit da nga émerger c'est-à-dire c'est-à-dire ah émerger pour ñu développer Sénégal pour ñu développer. non ah. développé goo da ngay émerger rek ci émergence bi nga toll <laughs> développé goo ba léegi yaa ngi ci pays yi nga xamante ne. cest à uh-huh. suñu xol yi moo am problème bi foofu la. Mm. ci xol nga fi ku fi am loo jàpp te mu gën si yow ah lijjante woo ñeneen yi. maanaam ku ne sa bopp bopp sa bopp. dama dem euh, euh, ministère des affaires euh, étrangères. léegi est-ce que bàyyi ñu pare ci Dantec bi. Hmm. après nga laalal ma actualité boobu. parce que boobu noonu saf na ma sànq bi nga ma ko doon wax parce que xam naa ne góomu. yi yëpp ñu ngi koy jooy na ko ñu ngi koy jooy donc comme li ma doon wax rek gars yi aussi déploré nañ le fait que nee nañ euh, reconstitution moom maanaam tabaxaat bi ay espagnol lañ ko jox mhm. euh, et que maquette bi ñu leen proposé euh, répondrul ak li nga xamante ne mooy besoin sénégalais yi par contre nag amoon nañ benn kenn benn sénégalais boo xamante ne waxtaanoon nañu ak moom ba mu jot leen a proposé ay plan yu baax léegi man sama question bi ma leen di laajte mooy est-ce que espagnol yi ñooñu gëñu xarañ ci ci ci tabax wala dañoo gën a sérieux wala nu mu dem nu mu fa demee. faatu foofu Sénégal ba ñu bañ koo jox doomu doomu réew mi jox ko koo xamante ne ay espagnol lañ. jàppal cinquième drogue. mooy lan bu dee côté boobu da ngay dugg Sénégal day daanu. Mm. waaw. Mm-hmm. parce que Sénégal dafa yàkkamte gagné marché pour lijjanti ay problème personnel Ah, du liggéey du mhm. liggéey loolu mooy sunu baat ñun Sénégal loolu moom mhm. keeruma rek wax ko mhm. tiituma wax ko Sénégal bu fekkee dëgg rek nga bëgg a dégg man tey ji bu ma yàlla dénkoon comme ma ne damay jox nit pour mu liggéeyal ma damay jëli tubaab wala chinois pour mu liggéeyal ma lu lu wóor lu am garantie parce que Sénégal koo ci jox xaalis ne ko fayal liggéeyal ma nangam su waree def fii tey ji cent million vingt millions la fay def yaa ngi dégg 80 millions yëpp da koy noosé ak a fay ay bor rek régler ay problème takk ak ay takki ay jeeg nañ waxante dëgg. non a raison waxante dëgg gis nga gis nga affaire yi nii. fi mm-hmm. du ñu am lu baax. Mm-hmm. te dama koo gis plusieurs fois. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne boo leen joxee ne leen liggéeyal du ñu liggéey dañ koy noosee ñëw defal la loo xamante ne même pa balaa at may dellu si sa am matériel yow la nga doon tabax léppay wàcc <coughs> matériel la ñuy jënd yëpp ay yàqu yëpp ay yàqu mais ñun ma yaakaar ne kam même mm-hmm. rek même bu fekkante ne am nañ ñoo xamante ne dëgg la loolu moom euh, étiquette bu ñu tafal la koo jox euh, ne ko tabaxal ma euh, lam ca war a def du ko si def mais xanaa am nañ ay exception yoo xamante ne ñoom boo leen joxee ñu liggéeyal la lu mu ci ayib non genre yu moo mel noonu sénégalais moo doy loolu. mais loolu tamit war a changer mënoo jël entreprise bu mel noonu mënoo jël entreprise bu mel noonu nga jox ko nit sénégalais nga ne ko liggéeyal ko mm. mais da ciy profité. loolu gis nañ ko fi mm. nga lan mooy def loolu mm. dignité nit da nga war am dignité am bokk nga xam ne bokk ci nit mm-hmm. yaa ngi dégg gis nga nit parce que man ma soo ma joxee ne ma defal nangam pour man sama alal laay defar mm-hmm. xam nga lu tax hmm. parce que kooku noonu bu ma ko defalee bu xolam seddee bu subaa bu gisee keneen mën na ma ko jox Sénégal ñëpp mën naa gagné seen marché parce que li may def dama ko fonk te am na ci liggéeykat yoo xam ne da leen di fay ay millions pour ñu liggéey la lañ leen liggéey du baax mais yow foo la parce que àq la nit jox la xaalisam ne la liggéeyal ma nga jël xaalis ba nit ku tungaañ lekk hmm. imagine ñaari nit ñett boo waxal ne ko waaye yow foo toll ci sama nangam mun la waa may ma tuuti dafa am benn marché bu may lijjanti mhm. marché jàmbur nga gañe ko fay ci bor marché jàmbur nga gañe ko doxaane ko <laughs> marché jàmbur nga gañe ko noosee ko marché jàmbur nga gañe ko takk ci ay ay moo fi bari mais je, je pense que quand ah, même jeunesse yi puisque ndaw yi lañ fi nekkal quand même xëy na ñoom après eh, jeunesse bii di ñëw nii nga xamante ne moom mooy quand même l'avenir du Sénégal ñoom dinañ changé tuuti seen façon de faire. ak seen mm. seen ay mentalité génération ba dindi ba dindi étiquette boobu noonu. teg ko étiquette bi. Mm-hmm. jamono bii dañoo gis nga. mag ñi ñoo jàngal ndaw ñi. Mm-hmm. te ndaw ñi bu ñu gimmiwul ci lu mag lu baax lu mag ñi. Mm-hmm. fan la ak ndaw ñi jëm duñu yàqu. ñu ñu jëlal seen bopp seen conscience. am na ci ñoo xamante ne wax dëgg neex yàlla ay jàmbaar lañu. Mhm. foo leen fekk ñu ngi créé ñu ngi xool naka la ñuy defaree mhm. waaye ñun jeunesse su Sénégal. Mhm. leen rek laa bëgg ñun jeunes yi. ah nañu góor góorlu ba étiquette boobu. nañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ñu dindi ko. teg ko fee waa ñu si teg ko dale parce que du lu baax. am na yenn exemple yoo xamante ne. parce que dañ naan mag mooy exemple mais am na yenn exemple yoo xam ne man du ma ko def ci mag ñi je suis contre. ndax boobu baaxul. d' accord ñu génération léegi bi peut être mu changé. Hmm. en tout cas benn défi la war a nekk ci la jeunesse sénégalaise mooy étiquette bu bon bi ñu tafal comme quoi que ni du ñu liggéey lu baax ñu jël ko teg ko fee te di liggéey lu am euh, solo. lii moom foog naa hôpital ba la. Euh, fu ay malade tëj ñun nag propreté nag daa bokkul ci. bloc opératoire bloc ah, opératoire fini. Mhm. civisme daa bokkul si ñun nag. mais xam naa dinañ si kaa. weñ sax waru fi taxaw. waaw loolu moom dëgg la moom. ay ay ay mbalit yu ñu tuur nii. Uh-huh. na ko doy na lii waaw déserté nañ de dara amul. te man dama si jaaxal hôpital yi boo duggee mur yi. Uh-huh. foo fekkee mur yi day am ay tâches. ay tâches ah duñ ko désinfecté nag duñ ko nettoyé loolu problème la aussi suñu centre ah. de santé yi de. ay xottu butéel yi est-ce que war nañ tege nii. non non normalement bu ñu tegee bu dara mais mais équipe am équipe bu yéeg matinal bi. Uh-huh. pour defar pour defal. désinfecté désinfecté mu set jël li nga xamante ne mooy mbalit yeeg yëpp. yóbbu médecin yi dugg faj. faj mm-hmm. def li ñuy def mm-hmm. noonu la. est que xam nga ni des fois man damay seetlu damay dem ci benn centre de santé ma gis kuy faj du sol ay gants man loolu daf may xaw a euh, tiital mm-hmm. tuuti yooyu noonu dama naan waa kii moom. Euh, sixième <laughs> drogue fu mu jàngee. a dem <laughs> moo ma jaaxal wala daa wóolu boppam. non <laughs> ah, ba doo sol ay gants man pour man sant dès l'instant où nga nekk si benn. centre de santé rek ak bépp bu mu mënti doon war nga sol say gants. ça c'est obligatoire Fatou de Fatou réew mi yàqu na Fatou mën naa xam naa ne wóolu boppam ak ñàkk loolu kooku noonu nañ waxante dëgg léegi tey ji bu fekkee dama lay jox exemple rek tey ji supposons bu def fekkonte ne dafa dugg ci biir hôpital bi dem jël ay loxoom noonu rek mu jël faj amalaatam génn nit may ko may ko dara mu jël rek daal di lekk wala mu fekk nit teg dara mu lekk wala soit ñëw rek nuyu nit ki noonu transmission maladie la de am na maladie yoo xam te ne ils sont transmissibles waaye léegi ñii lan lañ jàng moom a jaaxal lii mooy xolal <laughs> classe bu ñu dem ñu leen di paasal di leen paasal jàngu ñu leen di paasal ba classe d'examen ñu bàyyi leen ñu jàll <laughs> neexal neexalaate bi wala yaa wax loolu bralon yi euh. c'est vrai ñi jàng dëgg yeeyoo place yi joxuñu leen ko mbaadu moo tax moo tax ñu am problème nii parce que am na ñoo xam ne passion la ci ñoom ñu jàng ko obtenir loolu la ñuy def mm-hmm. bi ñu génnee seen ay diplôme mu ngi ci ñoom fuñ ko déposé du ñu liggéey réew mi nañu bàyyi di def bralon nañu jël kenn ku nekk place bi nga yeyoo ñu jox la ko nga dem liggéey parce que nit ñi am nañu volonté wu liggéey mm-hmm. mais amuñu liggéey mm-hmm. ñi yor diplôme yi diplôme yu baax yi jàng def lu ne ba jàng ba am seen ay diplôme tëju fii ñii di jaay ay xar ñii di jaay ay ay gerte nañu dem liggéeyi seen place garaawul pourtant jaay gerte tamit da ngay am xaalis waaw mais non non non <laughs> kenn pas de sot métier munoo fayal nit ki ay ay ay ay millions ay non gerte day am xaalis waaw je sais ma expliqué la benn affaire benn parenthèse bu ndaw rek balaa ñuy jàll ci gerte bi gerte bi boo ko jëndee denc nga est-ce que actuellement xam nga kilo gerte ñaata la di jëlu mille cent francs baykat ya ca baykat baykat yi ci baykat yi ñi ko mën kenn ku nekk sa liggéey nañ la ko bàyyee <laughs> yaa ngi dégg hmm? mais kaay nga jàppale ma fii kaay ma wala affaire yi mettiwul nii la nii ngay dugale nii ngay nangam ak nangam ñaata gis nit nga fi gis nit mu piqué nit nit ki am problème. ñaata nit lañ fi defal perfusion affaire yi rëcc parce que ka koy defal maîtriser li muy def. waaw loolu bokkul ci ci moom c'est parce que man moom dal na moom defar nañ ma ah, perfusion a rey naroon gaañu rek ñu naan nag euh, feebar bee ko rey. fekk ki ma bind bind da gis ki lay jëlal nii sax xool naan di bind la muy bind sax yow mënoo ko lire voilà donc euh, yéen a ngi seen émission sunu kaay yi tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy euh, ndaw yi ak euh, drogue bi ñu doon discuter ci li nga xam ne mooy actualité bi mooy hôpital Aristide Le Dantec ñu waxaat leen rek ne am na service yëpp donc réaffecté nañ leen ci yeneen hôpitaux yi par exemple boo jëlee hôpital Dalal Jàmm ophtalmologie fa la nekk cardiologie cancérologie am na aussi chirurgie générale Euh, général autant pour moi boo demee donc hôpital euh, bi nga xam ne mooy COUD euh, mooy université. Mm-hmm. foofu laboratoire de toute façon laboratoire yi moom Gaston non non autant pour moi. Euh, gastroentérologie moo fa nekk. Mhm. laboratoire yi ñu yóbbu leen donc centre national de transfusion sanguine. Mhm. donc euh, ci internet bi en tout cas bu ngeen ko tapé di ngeen gis. Euh, réaffectation yi nga xam ne moom lañ def ci différents services yi nekkoon hôpital le doon def six hectares yi trois doo nga ci am léegi ñu jàll ci deuxième <laughs> actualité man man moom dam koy dam koy tënk rek ba a bañ a bañ a jël taa rek gis nga Sénégal gis nga dañu dañu war a xoolaat bu baax suñu biir mhm. bu fekkee dañu bëgg suñu pays bi développé émergent bi Sénégal émergent lu ñuy woote. mu dëkk ci ñooñ dañu war a war a war a war a changé gis nga Sénégal fii fu ay mun a jàpp yow mu mu baax si yow rek lijjante wu ñeneen ñi tu le temps avec les autres. Fatou maa demoon ministère des des des affaires étrangères. 6 mhm. heures du matin ngay yow. pour dem foofu da a tukki bàyyi ñu fi. non non du loolu sax am na papier <laughs> sama sama moo nekk fale. Mm. léegi mu lijjante fi eh, am papier casier judiciaire pour ñu tamponné ko. Mm-hmm. mais gis nga Fatou 6 heures du matin ngay yeewu de pour dem foofu noonu. ran da egg foofu nga bind sa tour plus de 200 300 personnes ñoo fay ñoo fay ñoo fay ñoo fay daje. Mm. comprendre nga mm-hmm. mais da ngay dem 6 heures du matin. bind sa tur boo à 11h. waaj bi ñëw tëj mënu mën a wàcc naa. ah eh, li ma liggéey non mais li ma nit ñooy bëri est tamit nit yi bëri. Fatou defal na 11h la war a tëj 11h la war a. 11h dépôt bi dépôt bi oui ma dépôt bi. Mhm. dépôt bi 8h lay mhm. et demi. mën nañ ko mun nañ ko repousser ba 11h. Mhm. pour dépôt kese dépôt. dépôt waaw retrait 11h ba 16h. moom 11h mu tëj na euh, wàcc waaw dépôt bi 11h. 11h hmm. lay commencé. Hmm. ba 15h euh, ñu ñu pause. 15h hmm. ba 16h30. comprendre nga mais dépôt rek dépôt laa la wax dépôt. tu comptes plus de 200 personnes. da ngay ñëw 6h du matin ngay ñëw pour bind sa tur am na ñoo xam ne dañuy ñëw guddi bind seen tur nit ñi bi. mais organisation bi mooy problème bi organisation ak naaj bu tànk bi jour boobu noonu ñaar ñaar nit ñëw fa ñoo fa ñoo fa crise ngir naaj bi naaj bi ngay taxaw tàngaay bi wala mu génn dem téléphoné deux heures de temps plus de deux heures de temps mu téléphoné hmm. moom ku muy problème bu ñëw rek mu ñëw mu tëj mu ne mu ne wàcc naa hmm. wala wala jot wala ram bi jot la ba nga dug ba si biir de hmm. nga nar a déposé mu ne ma non wàcc naa ah. mënoo ci c'est-à-dire mm, gis nga loolu moom suñu suñu problème la loolu moom kaa la Sénégal du du kese ministre des affaires étrangères c'est-à-dire sénégalais man parce que man jour boobu nag dama taxaw waaj bi mën a ma grand xamee naa mën a ko foo xamee mën a ma si télé laa la xamee mën a quoi c'est vrai mën mm. a ma gis nga lu ñuy dundee nii chaque jour lii la te chaque jour que du lundi au vendredi mm-hmm. lii la mën a ma lii la moom moo la wax ko bi te xoolal te te du c'était devant moi parce que jour boobu maa ngi woon foofu noonu mm-hmm. maa ngi woon mais lu gën a métti faat lu gën a métti faat lu gën a métti mooy lu gën a métti mooy mm-hmm. nit ñi jógee ñi jógee ba Kër Massar ñi jóge fu sori du ñu mën a déposer. ñu ne leen demal ba suba suba ñuy ñëwaat du ñu mën a ah. a déposé mm-hmm. da nga koy da nga ko ba ñu juddoo ba dégg ba ba dégg yëpp te dara avancé wul. Mm-hmm. jii maire yooyu du jóge fu sori di ñëw fi ak paa yi. bu ñu décentraliser woon affaire yi ndax dina métti ku nekk yëpp <coughs> ku nekk yëpp doo am problème rang bu métti bi du fi am mais li ma lay wax rek kenn ku ci nekk buñ la tegoon sa place mais braloon lañ la fay tegee moo tax liggéey ba du la ñor du la saf mhm. yaa ngi dégg mhm. yow l'essentiel mooy weer bu dee na nga tàllal ñu fay la ko gor bu nekk war nga moytu ah doo liggéey doo jox àq liggéey ba pare buñ la bu weertee buñ la fayee nga bëgg ko lekk foog naa loolu bi la war a bokk le euh, nga tënk ne ay quatre heures de temps la ñuy liggéey dem parce que seen bu ñu toogee ñu ngi waxtaan bu yi ñu ne dañuy puudaru di wax ay nat wax ay ngénte di wax ay mariage ma ñëw uh-huh. lii man maa man maa man maa demoon benn benn bureau xam ne du ma wax tur mm-hmm. parce que mën na nekk publicité mm-hmm. dama dem parce benn pa benn papier laa doon lijjanti. bi ma bi ma yeggee ah. dama taxaw dama raanaa ba yegg si. pour fay timbre bi. ñu ñu tamponné ma affaire bi ma génne ko pour dem beneen bureau te foofu dañ ma fa jox rendez-vous. imaginal yow nga toog di jël sa temps di wax téléphone. si affaire yu ñàkk a fay. non loolu moom tàmm nañ ko mais yow soxna si est-ce que tey nga maa lijjanti xam nga rendez-vous lii nii boo ko defaree dafa am fu ma ko war a yóbbu te heure bi léegi mu jot mhm. nga ne maan soxna si may ma rek léegi ma yéeg ma pare man dama waaru mhm. yow ñun ñoo fi teg ñun ñoo tax ngay liggéey ñun ñoo tax ngay fayeku mhm. ñun ñoo la fi indi mais yow sa téléphone yu personnel yi est-ce que mënoo ko denc ba nga pause wala sax ba nga wàcc te nga yow nga liggéeyal nit ñi mais da nekk di wax téléphone personnellement pour yow sa bopp ba pare après heure pause jot nga teg téléphone boobu pause génn jaar ni romb nit ñi dem naa quartier yeggale waat sa langue mais loolu te lu gën a dee faatu lu a dee faatu ah mhm. waaj bi xam nga la ma benn gars moo nekkoon foofu di déconné di du yoon et cetera déconné xam nga eh, kii bi eh, eh, homme bi lu quoi mhm. mu ne ko sawaay yow ñu la dàq déconné ñoo fi jaar mënuñu dara fii da na ak ñoom am li nga soxla nga dem seen parce que la sa lijjanti parce fi jaar mais mënuñu ci dara da ngeen rek nga am li nga bëgg rek nga dem sa yoon maanaam maslaa gi am na mu ne mu ne bu ñu sañoon bu ñu sañoon dañ ko mu liggéey parce que ji li muy def sax boo àllu di wax ko décret da lay da lay dàq dara parce que yow sa sa njaboot fa la nekk foofu ngay amee sa dépense mm. boo alu ci boo ko wax dëgg rek mu dàq la loo ci mu mooy lu ma la wax du deñ <laughs> mooy lu ma la wax du deñ mm-hmm. Sénégal mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo yor seen ay diplôme jàng ba ne ar yor seen ay kayit tëdd ne mm-hmm. am passion wu liggéey na nga ca néeg yi tëdd seen yaay yi toog gaz bu ñu chargé seen gaz bu jeexee sax du ñu am lu ñu ko chargé mhm. parce que fayal nañ lépp lu ñu am fayal nañ ko seen doom pour ñu jàng ñu jël seen diplôme rënk ko ne di taaba taaba mhm. ñu del ñi nga xamante ne tekki wuñ dara mhm. bralon moo leen dugal ci société yi ñuy liggéey ñuy def naka sudul noonu yooyu noonu buñ ko dindee kenn ku nekk ñu jël la teg la fi nga war a ne Sénégal léegi mu dox parce que bëri na ndaw ñi fi nekk nii dañoo bëgg a liggéey mhm. ñi jàng ba yor seen ay kay dañoo a am compétence am compétence na yaakaar seen bopp am yaakaar seen jàng donc man pour man am na yoo xamante ne ñun Sénégal war nañ koo dépassé mhm. léegi nag comme li ngay wax rek jeunesse bi sa classe gi tey gis naa ni fi li ngay def yaa ngi ci boole jom ak njàmbaar de de même que Lidjalu Modou de même ko moom mais am na ñoo xamante ne li ñuy def xamuñu ko nañ leen jël ñu tegee leen nële ñu war a liggéey ñu indi la ñu liggéey parce que man dooma yàqal ah dooma yàqal. bu ma la indee pour nga liggéeyal ma li nga bëgg li ma bëgg mënoo koo def danga may may. Badou boobu la kon yow xam naa rek euh, dinañ contacter ki nga xamante ne moom mooy suñu njiitu réew euh, maître euh, maa ngi naan maître de xanaa ci Ablaye Wade laa na doon dem donc Macky Sall suñu président de la République. Mm-hmm. mu jël la. daf la daf la conseillé bu ma jëloon mu jël ku mën a conseillé. <laughs> su boobaa xam naa yu bëri yu bëri di nga ko lijjanti. non lii lu bëri naa ko lijjanti. d' donc euh, yéen a ngi seen émission sunukaay yi euh, tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy ndaw yi ak euh, drogue bi ñu doon faram fàcce li nga xamante ne mooy actualité bi mu di hôpital tëjum hôpital Aristide Le Dantec ak li nga xamante ne service public yi noonu loolu lañ fay liggéeyee xam naa nag dina leen kaa gën a xuus. ci ci li nga xamante ne noonu lañ fay nekkee ci biir bureau yi di ñaax jeunesse bi aussi ñi nga xamante ne ñu ngi seen place liggéeyukaay ñu leen di ñuy jox en tout cas liggéey bi ñu leen jox euh, ak ak yelleef bi mu war a àndal te am na am na ñu bëri ñoo xamante ne bëggoon nañ fa nekk yàlla wërsëkal la ko kon euh, war nga si def euh, sa kemtalaay kattan ba li nga xamante ne moom lañ lay fay weer bu dee mu doon loo xamante ne dalay lew te barke donc euh, yéen a ngi seen émission sunukaay yi fii ci sunu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu Sénégal yi comme niñ ko tàmm di waxee te ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy euh, suñu ndaw ñi ak drogue bi tey ñu jël nag benn pàcc ci drogue yi ndax bëri nañ. muy drogue violette dégg lañ dégg ngeen ko. dégg drogue. violette. drogue violette. waaw ñu koy woowee en anglais. ñu ñu koy woowee you know moom anglais la. you see you <laughs> <laughs> wax naa ko en euh, en français ne dégg ko en anglais. mu ne ma oh, ooyee la rek. mais drogue boobu muy def quand même euh, ravage euh, au niveau du Sénégal mais ñu fàttali leen rek ne drogue bu yàgg la parce que c'est en 1990. lañ ko njëkk a nemmeeku ci États-Unis 90 1990. waaw am na ci ñoo xamante ne tey jii ñu ngi koy jëfandikoo Sénégal boobu juddooguñu woon euh, ci milieu euh, hip hop bi surtout. hip hop mhm. aux États-Unis en 2013 te nee nañ aussi nag ay euh, personnalité yu yu bëri aux États-Unis daf nañ ci overdose parce que c'est une drogue quand même dëgg la demagul comme niveau cocaïne ak yooyu mais elle est très dangereuse et tu vois en France en dafa la fa ñëw. Hmm? en et tu xoolal li yow. voilà moo ngi noonu. en euh, 2022. mu lëmbee fii nii euh, Sénégal en tout cas ci 2022 bi lañ ci commencé di wax peut que mu ngi fi woon mais en tout cas 2022 moo ngi nii boo gisee da nga naan ay tàngal yu kii yooyu noonu tu te amoon ay tàngal yu doon am lu ci couleur yi. da nga naan màcc da nga naan teg sa lam yi rek mu seey temps booy. loolu maa wóor na. yii nag. xale yi ndax nañ leen ci lu bëri et puis euh, je me rappelle am na benn enseignant bu fi bind bu ci bindoon benn article ne mu ngi lëbëjee li nga xamante ne mooy jeunes yi nekk ci école yi. sachet 100 francs voilà sachet 100 mooy Nanda stick 100 francs. waaw waaw na fi. nga nga yaakaar ne ay kii la moo ngi toj fii ba léegi ah. waaw non dama am naa ci information. voilà donc da ngay yaakaar ne ay tàngal la. tey jii nii surtout parents yi nañ ci bàyyi xel parce que sa doom mën na ko yore da nga naan tàngal la yor ah. bi dëgg-dëgg la. waaw da nga naan tàngal la yor gis nga du mel. voilà donc te ñun nag dañoo tàmm ci lu ci lu ñu dugg rek dañ ciy ëppal. voilà dañ koy abusé trop. waaw waaw c' est c' est c' est Fatou li ma ci dégg. Mhm. li ma ci dégg jamono jii. Mhm. minti color bii nii ngay gis nii. Mhm. dégg naa moo gën a garaaw sax ba bu weex bi de. cocaïne la waaw waaw si si gën a garaaw. parce que bi boo ko naanee da ngay maam comme fas dara. ba pare dangay ngay tàggali ko sa sago di am ay. hallucination drogue yëpp dañ koy def sax mais bii nii moom da cee raw. te te te yi. jeunes yi lañ gën a ciblé jeunes yi lañ gën a ciblé et fii nag Sénégal mu ngi def ay ravage parents yi encore une fois soyez vigilants parce que boo gisee si sachet bi da nga naan tàngal la parce que je me rappelle comme ni ma la ko wax tàmbali. amoon na ay tàngal mi ci kaw la da nga teg salaam yi rek mu seey. et tu vois mi comprimé. xale ma li ma jaaxal mooy li ma jaaxal mooy drogue yi lu ñuy ñëwee. ah fu ñu dul ñëwee. terre air mer fu ne la ñuy jaar c'est ça le problème terre air mer fu ne ñuy jaar. waaw léegi waaw léegi waaw léegi waaw léegi. waaye da na xam naa ko moom man yow. la oreille ñi nga xamante ne suñu loxo jotul suñu ginaaw mënuñu fee indi drogue. dañ koo mën a jëfandikoo waaye léegi léegi da may ah. mhm. que lii dama cee lu doy waar. Mhm. ndax dégg naa ni. Mhm. xale yi ngay dégg ci réew mi Sénégal gi xam nga xale mag am na. dinañ gis xale mu yor xale boo xoolee biir yaramam. lépp dem na cinquante ans ba cent ans. astafurlah xale yàq nañ ci bi yëpp ndax yu ni mel. yii la ñuy naan. te buñ ko naanee. mën nañoo ànd ak juróomi waxambaane duñ ko yëkk dañuy màmm comme fas dégg naa lii mi ngi def lu doy waar ci dëkk bi ci société sénégalaise bi partout nag fii ci Sénégal mu ngi koy wër ba ci sunu dëkkandoo yi nga xamante ne ci sous région bi la ñu nekk yaa ngi dégg ni mu fiy duggee nag sunu dirigeant yi nañ ñu dimbali parce que comme ni nga wax léegi ter air mer la fu ne lay kaw la ci suuf ndox mi ak ci tali bi te fenn fu ci nekk am na frontière te foo ci jaar am na fu fu suñu euh, homme de tenue yu nekk war a contrôler am na yoo xamante ne ñu may accès muy dugg ci réew mi parce que ñun dafa am lu ñu baaxoo ñun dafa am lu ñu yeyoo pour man ndaw ñi war nañu leen dimbali ba yu ni mel du ci réew mi parce que nag jeunesse bi ñoo war a doon magi ëllëg te ñun bu ñu xale ñun bu ñu amatul benn xale réew mi ku koy yor moo ma jaaxal réew mi kan moo koy gérer bu fi ndaw ñi yàqool ñan mag ñi mënuñu defar réew mi. ah su ko defee jeune yi nekk euh, ci yeneen dëkk yi ñu ñëw fii rek gérer ñu dëkk bi. waaw parce que étranger yi bari nañ ci dëkk bi. Ah. war nañu xoolaat tamit affaire bi ni mu fi dugg see est-ce du tamit ñoom it dañ ko fi dugal. Mm. en tout cas en tout cas en tout cas daal baadoola mënu ngi mhm. ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa su ma la nee moo je ne parle pas aux consommateurs. Mhm. boo gisee ñu koy consommer dañ ko gis dafa dugg si dëkk bi moo tax ñu koy consommer mhm. mais avant muy dugg ci dëkk bi les les suñu njiite yi ñoom xam nañ bu baax a baax a baax a baax fu muy fu muy jaar ak nan ñuy def ba mu dugg si dëkk bi parce que business la business c'est dans le but business la dañ ciy business. mais au niveau nag ah oui au niveau ba mu kawee il faut ndax faut ñu wax li fi am. dañ koy business gis nga drogue boo fi gis mu dugg si réew mi. Mm-hmm. sàngara boo gis mu dugg si réew mi mm-hmm. ah alcool boo gis mu dugg si réew mi mm-hmm. ah. dañ ciy liggéey dañ ciy business dañoo xam ne bu baax a baax li ciy dugg ak li ci dul dugg. amul drogue bu ciy dugg si réew mi te yow jéeguñu ko. te mais attends nañ ko arrêté. maanaam bu ñu ko eh, arrêté à temps doo gis du ci am. est-ce que arrêté boobu seen seen seen seen njëriñ parce que am 5 kilos mënuma am 5 ma ñëw jox la 1 million parce que man xam naa 5 5 kilos yow lu ma ko su ma ko jaayee lu mu dee dee am ay ay ay ay 20 mm-hmm. ma jox la 1 million wala 2 millions pour nga bàyyi ma ma jàll dégg mais loolu moo fi am. drogue nga gis ah, yëpp drogue ngay gis yi fii yëpp ay sàngara ngay gis yëpp dañ ko tere pour ñu dugg si dëkk bi d'accord mm. mais ñuy nekk si buntu yi yooyu noonu buntu ñu buntu yi dugg si ñëw bi bu buñu buñu dañu leen corrompi ñu dugg dañu leen corrompi yow sa salaire ñu lay fay deux cent mille francs par mois mm. ñu lay fay cinq cent mille francs ma man ma am cinq kilos cinq kilos cocaïne yoo xamante su ma ko jaayee naa ci am ay trente cinquante briques mm. ma ñëw jox la deux briques wala trois briques yaay booy boo gëmul yàlla boo gëmul yàlla gëmul li nga def hmm. gëmoo sa bopp gëmul yàlla gëmul yàlla hmm. mais hmm. lay nekk parce que kii dama koy rejoindre ci li mu wax parce que dégg naa am na ci ci bi ngay gis nii mel ne tàngal nii am na ci yenn njiit yoo xamante ne ñoo koy jox mooy ñi nga seen ñi ñi ñi seen nekkaale yi mu def nekk ay prostitution déguisée yi ñuy def nekk ci appartement yi sañse ba rafet guddi ba guddi la ñuy génn dem doxantu ñëwaat bu ñu yii la ñuy utiliser ñi ñuy nekkal mooy borom borom borom borom daraja yi ci réew mi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. yooyu ñooñu la ñuy nekkal ñoo leen koy jox. Mm-hmm. ba pare nu leen neexee la ñuy nekkee ak ñoom. façon bu ñu bu ne même bu l'islam daganu sax dañ ko dañ koy nekkee ak ñoom. waaw mais tamit euh, drogue bi ñu bàyyi xel ne tamit même bu nekkul sax li nga xamante ne ay ay mag dañ koy jëfandikoo wala mag jël ko jox ko xale xale yi si boppam ñoom dañ koy jëfandikoo entre ñoom. parce que soo demee ci milieu école bi surtout nemmeeku nañ ko nag ci milieu yi nga xamante ne mooy au niveau scolaire et surtout voilà si biir école yi. et en général voilà. foo xamante ne dañ fa war a jàngal ndaw ñi. voilà dañ ko fay dañ ko fay jaay fa lañ koy yóbbu. gaa yi gaa yi nga xamante ne ñoom ñooy écouler drogue bi comme ni nga ko waxee lobbying yi au niveau la bu xasee ba dugg ci dëkk bi ñi lañ koy jox ñi nga xamante ne dañ koy jaayaat ñooñu si biir école yi la ñuy dem di ko jaay xale yi xam nga fa laa bëgg ñu attirer attention c'est les parents il faut que ñu vigilant ñu bàyyi seen xel ci seen doom yi nga xam ne sa doom bu changé yenn comportement yi nga jéem a xam lan moo ko yóbbee changement de comportement boobu noonu parce que drogue bi ci xam nga ne parents yi ci la parents yi ci la. non non parents les parents ci ci lañ bokk. laaj ma parents yi ci lañ bokk. laaj ma explique. waa acca. Fatou bàyyil parents yi. gis nga fii nii. Euh. gis nga fii nii ko jàng ba au niveau niveau niveau yoo xamante ne nga egg foofu noonu. Mhm. ah yow tu es tu es responsable de toi-même. Mhm. parents yi dañu la dañu la dañu la dañu la dañu def ci yow lu ñu war a def dañu la dañu dañu la dañu la éduquer. Mhm. teg la ci yoon dugal la école nga jàng pour nga xam pour nga am xam-xam xam lu bon xam lu baax dañu la jàngal lu bon ak lu baax dañu la jàngal aduna yow de boo demee ba nga am 10 ans am 12 ans 15 ans yow xam nga bu baax lu ma arrangé ak lu ma dul arrangé comprendre nga yow boo nekkee fii dem école nekk fii di ay tuxu yamba wala ay ay ay drogué nga naan parents yi responsable amul benn responsable parents yi foofu noonu yow yaa jël sa yoon bopp parents yi lu ñu def ci yow def nañu la dañu la jox éducation une très bonne éducation ja dugal nañu la école nañu la nga wax may ma ban am na ñoo am na ñoo xamante ne à l'âge de 15 ans à l'âge de 16 ans ñu ngi drogué xale jigéen à l'âge de moins même mais léegi yow ay xale lañu jigéen ma ñëw une fille qui a 15 ans une fille qui a 15 ans hmm. ah yow ngay drogué woo nga naan parents yi parents yi dañu la war a suivre ban parent la lay suivre ah, 15 ans yow ñu jàngal ñu ñu ñu jox la éducation une très bonne éducation. ñu dugal la école yow à l'âge de 15 ans xamul lu bon am lu baax. da nga may may ma ñëw may ma daanal comprendre nga yow 15 ans bu soo nekkul terminal yaa ngi soog wala première wala terminal 15 ans. ay eh, 15 ans BFM la fu mu nekk nii. 15 ans BFM la non am na am na am na 15 ans. Ah, xanaa kooku surtout la 15 ans BFM la am na 15 ans yu def. am na 15 ans yu def zokon première. les filles qui ont 15 ans am na 15 ans première zokon. <laughs> kañ ngay daaneel. <laughs> daaneel nañu waxante nañu ma man li ma man maanaam man fa laay kaas maanaam fu muy ñëwee man bu duggee si dëkk bi moom loolu sama sama yoon mais balaa muy dugg si dëkk bi. Mhm. ah ñi nekk si buntu yooyu noonu. Mhm, ñu ah, ko ñu ñu ñu naj ko maanaam ñu bañ loolu parce que. Fatou Sankara buy buy buy buy buy utiliser si si si Sénégal fii nii c'est des millions de bouteilles. Mhm. millions de bouteilles avec un pays nga naan 95 euh, pour cent ay jul ay musulmans lañ. musulmans yi dañuy naan fu mu jógee damaa bëgg nga déglu mhm. demee ba 10 ans 15 mhm. commencé di drogué wu. Mhm. ba 18 ans ñu ngi drogué wu. yaa ngi dégg nga ne du fotu parent ci lañ bokk xam nga lu tax di jëlu bu njëkkoon ñun suñu parent yi suñu daan xëy di jàngi dañuy wax moytul lii defal lii bàyyil lii booy génn xam nañ li nekk sa saak booy ñëw xam nañ li nekk sa saak booy ñëw parce que dañ lay dañ lay visiter dañ lay xool yaa ngi dégg boo changé comportement xam nañ ko. boo amee la daan xam nañ ko parce que dañ la daan bàyyi xel suñu parents yi amoon nañu temps. Mm-hmm. et cette fois ci amuñu euh, am nañoo parents yoo xam ne amuñu temps wu visiter xale bi. am nañu ah, temps de non mais. xale yi ñoo déglu am nañu temps de xale yi ñoo déglu. laisse-moi terminer laisse-moi terminer nii am nañu temps mais duñu dégg. laisse-moi finir. ok même ma ñëw. gis nga xolal doom yaa ko jur. mooy njabootu kanaara yi ngay dégg nii dañoo délaissé wu. ñooñu dañoo abandonné li li li ñu waroon def ci njaboot defuñu ko ci njaboot ñooñu ñoo bëgg lu yomb naan njaboot ki njabootu kanaara damay jiital du ko def. loolu du ma ko mës a ci àdduna même ma yëgal même ma yëgale rek ngir yàlla balaa temps bi du ñu xooj parce que li may développé nii dama bëgg mu leer parce que nit ñi ñi ci biir kër yi parents yi il ñu dellu si am niveau bu ñu yoree yoree xale yi xale yi aussi tamit il faut ñu dellu si waat man joxuma benn toor parent joxuma benn toor xale mais damay wax pour solution ñu bàyyi ci xel parents yi temps boobu ñu amoon yow mii boo daan jàngi ñu xool lan nga jàngi boo ñëwee ñu xool lan nga sol li nga sol est-ce que yaa ko moom lii fan nga ko jëlee li sa saak est yaa ko moom yooyu yëpp dañ ko daan xool mais léegi xoolatuñ ko saagu xale da koy visité armoire u xale da nga koy visité sunu xale mën ko dégg doo ko yaa ngi dégg ba am ba jombe am nag nga naan fu mu jaar parce que yaa bàyyiwul xel dafa am loo xam ne dañ ko def ci yow te defoo ko ci sa doom maanaam parents yi dañoo war a ñaaw njort nga ñaaw njort jamono bi xale yi bu ñu dëgëree bopp yow ñaawal njort bu leen may dara man maa la jur Fatou Fatou ñaawal njort boo xamante ni dëggoo xale yi ma bu ñu ñibbisee mu jël ay yu mu war ko ci sàkkam moom mu sol ay paañ ay paañ ay faute à qui mais mais attends parent parent xam na visiter saakam moom mais copine am du visiter saakam parce que moom day xaritam j'ai mu visiter saakam parent ñaata xale jigéen ñoo fi ñoo fi ñoo fi ñoo fi jël ay yére seen yére yoo xam ne ñu lakkate bu ñu demee ñu salal ko dañoo dëggul loolu laa lay wax nii mais c'est pas la faute am naa am nañ part mais heure jamono bi ngay wax fu ñu toll nii bokkul génération yi ñoo génération léegi génération c'est des générations immatures fees del newi am iPhone 11 Pro Max 13 Pro 12 Pro Max parents du ko laaj lu mu ko liggéey fu foo ko amee. Ah, bu ko waxee sax bu ko waxee sax lan. ma foog ne parents yi leen koy jëndal. eh eh ah. moom li ma li wax léegi nii moom mi ko doon bañ mais mi ngi may rejoindre. Hmm. que parents yi la am nañ ci part de parce que dañ ci am part de responsabilité. waaw mais waaw boo ñëwee. indi loo xamante ne yow man joxuma la ko jënduma ko boo ñëwee dama lay danaa la enquête fan nga ko jëlee man ak yow dinañ ànd ba fa nga nekk gis nga allez dañuy am téléphone ah. un mois parents yi du ñu xam ne si diw am na téléphone waaw léegi xam nga lu indi loolu ay weer sax doo xam ne sax am na téléphone di jëlu da ngay d'accord ak man kon parents yi dañoo ragal seen doom yi léegi. mais mais loolu la woon xale yi léegi xale yi léegi ñoo immature xale yi ñoo déggul xale yi duñu dégg. xale yaa ngi dégg parents yi ñoo leen ragal la wax xale yi ku ci ne da ngay jël sa yoonu bopp man instant yi nii man man man bële man du ma du ma blâmer kenn ku fi jël sa yoonu bopp yaa yow la concerné ah, parce que kenn du xale suñu jeunesse bi waruñu jël seen yoonu bopp parce que ñoom ñooy suñu avenir quand même waaw dañoo war a tegu si raay yi buñ fekkente ne nag comme ni nga waxee Sénégal di leen lu may bañ tëgg la ci yoon nga bañ jox wax la réalité nii la nga ngay dëgër bopp ma lay conseillé fii la du ko génnee fii mais du ma sonal sama bopp yaay booy ah dee foog ñu sonn non mais du ma sonal sama bopp am na yoo xamante am na jigéen ñu naan kii kii du ngeen sa déglu eh. man samay parents wax dëgg neex yàlla du ñu sonn ci man heure bi ma xam fi ñu ma jaarale ba ma éducation bi mam hmm. muy base bu dëgër këj hmm. nee naa la gis nga doom juddu rek ne ton doon punkal hmm. jaar na ci ndaw tette nañ ko yaa ngi dégg raam na tette nañ ko. Mm-hmm. xam na ni boo laalee sondeel mu ngi tàkk boo defee nii ay ay ay dafa tàng yaa ngi dégg. Mm-hmm. ñu nax la ci loolu xale bu nekk dem nga ci étape par étape ñu yor la. Mm-hmm. gis nga bant te tooy tooy bi nga koy lijjanti. doo bàyyi ba mu ni mag nga naan garaawul bàyyil bàyyil bàyyil ba mu nekk punkal nag ëpp la doole nga bëgg ko tere problème mooy bëri ci kër gi ak ay dama dama yu bëri mais doo a dégg ñaata ñaata ñaata xale jigéen ñoo xam ne seen parents dund ak ñoom am na ñoo xam ne seen seen seen waajur ñu ngi parce que man tey ji sama sœur bu fi nekkulee mm. mu bàyyi fi doomam ma xam ne doom ji xaw ma kan lay kan lay jëriñ ëllëg. dama ci waslu ak. parce que xale wasul na fii ngeen wasul na mu jàppale di doo doo doo moom boo ko nee nii mu ne la nee Fatou yow gis nañ ko fii. mais parce que parce que juuroo ko du dafa juuroo ko dafa ko éduqué en tant que parent wala papa wala yaayam boo ko nee nii mu ne la fukk loo ci mu. d'accord donc boo ko dooree mooy le problème yooyu. ñu fàttali leen ne ñu ngi suñu émission suñu gars yi. tey ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy drogue <laughs> dellu si waa suñu plateau suñu kaay yi tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy ndaw yi ak drogue yi sànq na sama chroniqueur yi dañoo tàmmoon <laughs> ma leen doon may batma <laughs> pour ñu naan ndox tuuti voilà ñu ngi euh, suñu njeexantalu émission bi. dama ah. leen di bàyyi ku ci nekk ah, awa temps bi daf ñu xoj nag <laughs> jël ngeen yëpp nag ama yéen bu ngeen di waxtaanee di xaabaa ba pour ñu téye leen problème la de. du ngeen di temps bi c'est-à-dire fii li ngay laal la parfois li ngay laal la te man dama bëgg. kaay <laughs> ah, kaay gars ma koy jox rek ma koy dëgg la dëgg dafa nekk loo xamante ne information boo xamante ne actualité boo xamante ne mu ngi mu ngi lënd àdduna mm-hmm. Sénégal ñun ñun sunu ndaw yi dañ leen a war a préparer mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. jox leen de bon exemple mais am na yoo xamante ne ñun waruñu ko waruñu ko def ci kanamu ndaw ñi. Mm-hmm. parce que lu ci mel nii ñu dem def ko ay couleur juste pour nax xale yi. Mm-hmm. yii war nañ ko moytu. Mm-hmm. te li nga xamante ne fi lay jaar. muy jaww ji muy suuf muy ndox mm-hmm. nañu dimbali sunu dirigeant yi mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. man xoolal boo ma doon jox ay milliards du ma la may nga jàll parce que lii nga jëm ci jeunesse bi la jëm te bugguma sama jeunesse yàqu man ah, du ma ko nangu beneen bi si topp manoon c'est vrai ñëpp meluñu noonu mais bu ñëpp kenn ku nekk rek defee li nga war a def xam nga sànq yaa ngi wax ci affaire éducation xale yi doome yi niñ leen war a yaree koo ci yónni du bañ déedéet kenn ku nekk parce que xale xam na borom xol bu rafet xale du laal borom xol bu bon xale bu daw see ñëw ci parce que may nga ko jàmm xale mën nga ko neexal mën nga ko yar te doo ko dóor doo ko saaga parce que am na dóor yoo xam ne boo ko dóoree xam le xale dafay xam ne kii daf ma dóor parce que daf maa bañ bëgguma parce que def ma lu waral mu di ma dóor mm. pourtant boo waxee ak man mën naa ko mm. koy violenté chaque mm. waxee ak yow ne li nga bëgg du la ko defal su boobaa problème day am mm-hmm. xale dañ leen naxtaan xale danga koy nàmpatal sa bopp xale danga koy miinal sa bopp ba loo ko tere mu ko luñ ko def ci mbedd bi bu ñëwee ko def ci mbedd bi mu ñeme la ko wax te nga may ko ouverture kanam ba luñ ko wax mu wax la ko bul ko fenetal parce que xale boo ko fenetalee rek li nga bëgg doo ko am te mën naa daj lu ne ci mbedd bi bu ñëwee booy moom ah, ko naan ci mbedd bi moom boo ñëwee sa kër moom sa waajur dina xam ne yow moom yaakaar nañ ci war nañ ko dégg en tout cas ce serait bien ñu walewaat image yu pilule yi pour parents yi gis ko bu baax a baax parce que dafa am forme tàngal et ndax ci xale dafa dafa dafa vraiment voilà donc. Euh, ñi jaay ci école yi. Mm-hmm. école boo xamante ne dañ fa dem pour éduquer xale yi pour def seen xel dara. Mm-hmm. mais nga dem yóbbu fa loolu ñu ko fay jaay. Mm-hmm. xale di ko nan di yàqu. Mm-hmm. yàmbaa man am na am na am na benn waay bu am pousse pousse nii di def ci glace yi nii jaay xale man wóolu yooyu noonu. <laughs> bàyyi borom pousse pousse bi yàq seen liggéey. non non bàyyi ci xel bu baax a baax. voilà léegi suñu réalisateur bi bu ñu wanaatal woon encore rek couleur pulil yi mu tagalaat ñu ko ci image pour parents yi gis gis ko parce que kanam suñu kaay yi ñu koy seetaan bëri nañ ñu xàmmee ko bu baax a baax baax voilà lii du du tàngal drogue la ku ko gis sàkk doom si poche am wala quoi que ce rek euh, xamal ne xale bi ñu ngi koy nax di ko jaay lii euh, drogue la c'est dafa dafa gaaw ci nga dépendre ci drogue bi am tamit mhm. xale yu jigéen ñi nañu bàyyi xel. Mm-hmm. ba ci góor ñi xale yu góor yi bàyyi leen xel mm-hmm. jeunesse bi. Mm-hmm. sama ndaw réew mi rek laay waxal. ñii rek laay yërëm. billaay léeg-léeg am na si ñoo dañ koy def ci boisson jox la nga naan. doo xam sax li xew. xam li xew dañ lay invité sama doomu day ñëw reetaan yooyu noonu. booy nañ ko kàmbal. nga ñëw def ko ci boisson jox la nga naan bu ñu ko jox doo sax bàyyi xel na yow ñii yéene nañ la lu bon dañ lay yàq. d'accord léegi nag temps bi daf ñu tënk dina ci ñëwaat parce que semaine bi yëpp dañuy waxtaane li nga xamante ne mooy euh, ndaw yi ak ak drogue bi tey dañu leen doon may li nga xamante ne mooy la drogue violette mais balaa ñuy tëj émission bi dama bëgg ngeen xam tey est-ce que tey mooy ban journée ngir yàlla journée journée bi drogue bi man moom <laughs> <laughs> ngeen ne non non man tey dama gis journée internationale bi dama jàpp ay ree parce que dama ne lii kaala parce que wóor na ma ni ki def ki wax ñu def journée internationale boobu moom si jëm boppam fàtte na ko international du cerf-volant xam ngeen luy cerf-volant est-ce que fowe ngeen ko. fowe bi. Ah, bu bu ñu mënoon may cerf bi rek balaa ñuy tëj émission bi. war nañu ko def journée mondiale. <laughs> xam nga Sénégal lii eh, du Sénégal c'est mondial journée internationale du cerf voilà maa leen ko baaxee woon tey nag ndaxte lii kaa la <laughs> moom bii bi bi journée mondiale jaaxal nañ ma diggeelu tàggoo ñu la la oreille jox naa dig daje rek suñu euh, mbokku téléspectateurs yi ngoon suñu bës 17h ba 18h30. Euh, di leen jaajëfal di leen. jox euh, rek ah, di leen wax jox dig daje rek ba ci kanam suñu bës. waxtaan bi neex na mais ngeen jëlee njariñ xale yi parents yi ngir yàlla ak yonent bi. Mhm. bàyyi leen xel xale yi mhm. bàyyi leen bu leen ragal seen doom yi. leen xel. di leen xool fu muy dugg. waaw muy dugg. fi muy jaar tamit suñu njiit yi a ñëw teg leen fii hmm. terre air mer nag laa wax ak agent yi nga xam ne ci frontière yi bu dara duggati ngir yàlla pour jeunesse bi ñun amatuñu benn jeune ñu mën a émerger jël nañu gaar gi ñi ñu a yor réew mi moo ma jaaxal jàppale leen ñu ngir yàlla <laughs> voilà donc ngeen nekkoon seen émission sunu kaay yi tey ñu doon waxtaanee li nga xamante ne mooy ndaw yi ak drogue yi xam naa thème de la semaine lañ koy def dinañ fi indi ay spécialistes yoo xamante ne ci mel ni ay médecin wala ay psychologue tamit ñu lan moo tax ba léegi rek ñu yegg si fii ak lan mooy effet yi nga xamante ne ci santé xale yi da ci euh, da ciy am ay répercussions mhm. ñu bàyyi xel nag ne drogue bi drogue violette yi comme ay tàngal lay mel te dépendance am dafa gaaw maanaam boo ko xesee ba commencé jël pour nga bàyyi ko problème lay doon te seetlu nañu xale yi violent nañu xale yi vulgaire nañu amatuñu éducation te mun naa ne nag lii yëpp ci drogue bi ci la ci la bokk mhm. ci kaw loolu nag ñu leen di jox euh, dig daje ëllëg euh, même heure fukki waxtu bu jotee ba fukk ak benn ci talaate gi ci suba àllarba la. voilà donc waxal su bokkul ma la dorog. su bokkul ma la dorog <laughs> voilà te di leen di jox dig daje 17h30 ak sunu bës bu leen dee fàtte aussi suñu émission matinale di dugg aussi ci réseaux sociaux yi ñoo ngi ci canal 27 aussi ci partie claire u TNT bi ak canal 34 ci TV d'Orange bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax.